mbokk mi ngi noonu seen émission euh, gindi dellu seet si na comme ni ñu koy defee aljuma bu jot ñu ànd ceeg Serigne Abdoul Aziz Diaw euh, amal nañ ko bi passé macha allah waxtaan waxtaanee lépp lu jëm ci euh, doxeenu réew mi mu am ci ay xalaat beneen bet mooy ñu ñëw ci côté liggéeyam yéen a ngi gis sax ay bande annonce am di daw ci li nga xam ne mooy liggéey bi comme ni ñu ko doon waxee muy koo xam ni yàgg nañu seq ak moom ci wàllu liggéey. yàgg na depuis que ñuy door ko xam sooy bu xam ko Serigne Abdoul Aziz Diaw ñu ànd ceeg Baye Assane Mesre ci waxtaan wi Baye ñu bàyyi la nga nuyoo. jërëjëf samay bu ñu ngi lay siyaara baax te di ndokkeel. Mm-hmm. di am mbégte contentement si plateau bu am solo bii di gindi. Mm-hmm. Euh, di ndokkeel Serigne Abdoul Aziz Diaw mi ngi si àndal waaye di ndokkeel ñi nga xamante ñu ngi bàyyi xel ñëpp. Mm-hmm. jaajëf mi ngi noonu kon tey daañ tey daañu waxtaanee nag incha allah ay eh, lu soxal ci eh, wàllu liggéey bi. Mhm. xam naa nañu xaar xorom si dañ ci gën a ñëw waxtaan ci itam. Mhm. lépp lu jëm ci wàllu kurus ak eh, li nga xam ne fu mu jëm ànd ak moom dinañ ko ci laaj incha allahu rabbi. Mhm. muy yat boobu li nga xam ne moo doo ngi feeñal sax maa ngi gis yat bopp bi noonu ci kii balaa ñoo dem ci loolu lépp nag ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu daal di xuus ci waxtaan bi sëriñ bi jaw bismillah alhamdulillah auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi habli xukman wa alxiqni bissaalihin alhamdulillah ala niami alqaaili fi kitaabi alaziz yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun wa usalli wa usallimu ala sifaahi al abdaani wal quluubi wal arwaax saydina muhammadin rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa aqusu abraka tahiyaat li saahibi solution tv sil injaazaati al kubra alaaji saa njoogu mbeng Mm-hmm. wa mudiri solution toy bi sëriñ Souhaïbou Diop wa saalisil ahda Baye Assane Mesere wa li kulli man yusaahiduna aw yastamiu ilayna mm-hmm. wa adon tahiyaat li sahama diinina fi yadi si Abdallahi sëriñ Jim Ndiaye yuballiquwa alayhim wa uhayyi sahama addunyawiyin wa raisa xisbi Pastef mahal siqati sénégaliyina wal afriqiyina Seydina Ousmane Sonko wa wafaqahu llahu li maslahati sénégaliyina wal afriqiyina wa sukran lakum wa antasiru ma indakum min al asilati ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu wa rahmatullahi wa barakatuh ginnaaw ba ñu sant yàlla si résumé bu gàtt julli si yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, du ndokkeel suñu bopp si weeru koor bi di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla ah, di nuyu bu baax kilifa diine yi nekk ci biir Sénégal ak bitim réew suñ ñëwee si kilifa diine gi ñu ngi ko jox si loxo si Abdoulaye Ndiaye mu joxal ñu ko si mbooleem xalifa seen roy Cheikh Maay Ibrahim sëñ Muntaqa Cheikh Aboubacar Mansour ak mbooleem xalifa seen roy si biir réew mi ak seen i njaboot noonu la ñuy nuyoo tamit mbooleem ku ñu seen seetaan si biir réew mi ak bitim réew di leen jox suñu loxo xol di nuyu kilifa aada yi bu baax di nuyu ziar bu baax président Macky di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiix yen nañ ko ko mooy réew mi yàlla yàlla may ko tawfiix ba mën ko yeggale mandat bi si alhamdulilahi rabbil alamina noonu la nuyoo tamit waa opposition bi yépp di si jiital ki nga xamante ne ki nga xam ne ndaw Sénégal moom lañ jox seen confiance ak Afrique Seydina Ousmane Sonko di ko ñaanal yàlla mbébét bi Sénégal am si moom ak Afrique yal na yàlla man ko ba man ko ba mën ko xégal si alhamdulilahi rabil alamina bisimilahi rahmaani rahim mi ngi noonu Assane euh, sëriñ bi de man xam naa nuyoom bii man xam na nuyoob campagne la mm-hmm. xam na nuyoob nuyool xam ndax moom bu ñëwee day nuyoo ci arab mm-hmm. aj ajal Sonko mu jël ni xam d'accord naa sax euh, yaakaaru euh, Sénégal la mais yaakaaru moom dafa garaaw xam naa xam nga moom léegi mi ngi tàmbalee bàyyi waale xel xañ na dafa gis ni am na ñenn ñenn Afrique yoo xamante nii ñu ngi koy ñu ngi am si moom yaakaar. xam hmm. na looloo tax mu ni yaakaar yi Afrique. Hmm. Hmm. waaw daan nga foofu. waaw nuyoo bi daal am na. solo trop jàppoon am na kum ràccal daal. non président Macky Sall la si waroon a leeralal si yaakaari euh, Afrique yi ndax it moom moo jiite woon CEDEAO waaw waaw waaw euh, liggéey liggéey bu am solo ba ba jeexal euh, kooku kon jàmbaar waroon na kii daal <laughs> jërëjëf sëñ kon incha allah dinañ waxtaanee lépp lu jëm ci loolu nga xam ni mooy actualité Ahmed Khalifa Niass gis ni porté na plainte xam ni moom mooy Ousmane Sonko ci nee na daal ab wax ko waxal loolu dinañ ci ñëw ci seen xalaat ndax dafa ñu ngi commencé di dugg ci mbirum porté plainte yi dinañ ci dikk bu ànd rek Eh, dogalu borom bi eh, la 30 itamit Ousmane Sonko war naa wuy ji donte ne jóge na ci jagadu yaram bi nga fi mujj am na lu waxoon ci eh, yii di ñëw am na yu bëree bëri yoo xam ne jotul hmm? wuy ji. tanek wuy hmm. yooyu de moom xam naa ni jombul ay jàngat la est-ce que Ousmane itamit wurte seeti sax gaa yi ñuy ñaanal ko am na ñu ne Ousmane amul kaaraange am na ñu may dégg ñuy wax loolu waaye xam naa ko amul kaaraange yegg si fii mu yegg si moom man loolu jaaxal na ma. Hmm. ak li ñu koy xëy di wax. léegi sëñ Abdou bala ñoo ñëw ci loolu lépp nag dama bëgg tey ñu njëkkee ci li nga xam ne ba léegi du ma euh, fàtte di ko wax ndax defe naa nit balaa dugg ci dara dafay seet kon ñu fàttali ne yow itamit da nga yëngatu ci lu jëm ci wàllu kurus di seet xam naa Modou bu fekkee ni euh, kii ne ma na ma affiché numéro yi waaw alhamdulilah doomu aadama lépp lu muy dugg war naa xam lii muy dugg amal na ko njariñ wala amul ko njariñ baax na wala baaxut am n mujj wala amul mujj ku am na si droit su mhm. nga même soxna boo si dugg <coughs> da nga dem xooli sa soxna si yàlla dëppale na seen wërsëg wala dëppale wul seen wërsëg mm-hmm. dafa am jigéen ñetti façon jigéen ñoo am mm-hmm. na jigéen ñoo xam ne boo si duggee fa mu la fekkoon da lay wàccee mm-hmm. jigéen googu boo si duggee yaa ngi si musiba baaxul <coughs> moo am jigéen joo xam ne boo si duggee fa mu la fekk fa lay yemale dol avancé loo mukk boobu tafatane waaye baaxul moo am jigéen joo xam ne bu la fekkoon ngay doxee benn tànk dana la yëgal ngay dox juróom-ñetti tànk maanaam boo doon doxoon fekkoon dafa ñëw fekk sa wërsëg di dox cinquante cent dana ko yéegal cent pour cent loolu rek a tax ñuy xool mbir doomu aadama ndax seen mbir ànd na naa jabar waaye ko takkee ba léegi mënu ma am dara kon kooku fi mu la fekkoon dalaa wàcce baaxul am na koo xam ne da nga si moom ren mhm. balaa déwén nga am loo xam ne mosoo ko am kon jigéen jóg fu mu la fekkoon da lay yëkkati moo tax seet am solo nit lu muy dugg na xam ne lii am na avancement si moom wala amul avancement si moom baax na si moom wala baaxul waaw kon est-ce que ñu ñàkk koo dem seet ba koo takk mën la kii baaxul nga bàyyi ko mënuñoo fexe ba lii waxu ah. ak yu ko hmm. boo si bala nga see dugg da xam am na gaaf wala amul gaaf am na mucc wala baax na wala baaxul. waaye léegi bu baaxul solution mënu see am. waaw bañ koo takk solution war na see mën a am. pour mu takk am na ñoo xamante ni masalan doomu aadama lépp lu yàlla def muy jalaal rek am na jamaal hmm. maanaam lépp loo xam ne boo si duggee lakk-lakk am na si am na ndox mu koy fay ah, gis nga diggante lu mu tar tar tar tar am na hmm, hmm. ñaan yoo xam ne ak doxaa yoo xam ne mën na si dara ah, gis nga sallallahu alayhi wa sallam moo digal jaami yàlla yi ñu yërlu seen i mbir moo digal jaami yàlla yi ñaan gis nga ñaan lu mënta fànq si àdduna amul am na ñoo xam ne seen i mbir xam na ne kii seen jabar ji du jabaru wërsëg waaye ñu ngi dem su seetu nit yàlla yi mu leen ñaanal di leen digal sarax ba yàlla dëppale leen mm-hmm. am na koo xam ne waa day am jigéen dina am gaaf nga ñaan ci ba mu amul benn werante kër sax dana am gaaf mm-hmm. nga ñaan gaaf ga dañ am na kër ñoo xam ne bu ñu sañcee kër ga ka sañcee kër ga day feebar ba bis penci mm-hmm. ñu fa dëkk di feebar wala ñu fay dëkk di réeroo ngay fexe di am yittey ñaan ba yàlla dindi loolu gis nga adduhaa u silaahul mu'min jeexalu jeexal jeexalu dara ñaan mooy ngàndeel jullit gis nga tooke lu mu doy waar doy waar ñam ñaan mën na koo dindi kon ñaan lu mënta def sa doomu amul gis nga li may bañ ci àdduna mooy nit kuy làmbatu wala kuy dugg si lu mu war a dugg man danguma loolu lépp looy dugg na la leer nga xam ne lii am nga si yaqin ne bu ma si duggee danaa si am ndam nga doo see dugg mhm. waaye làmbatu baaxul d'accord làmbatu baaxul kon daal ki seet ñu ne ko sa diggante ak ndaw si eh, seeni mbir déppoo dëggoo eh, déppoowul mhm. mënees na see ñaan ba mu dëppoo waaw sarax loolu lay jariñ ah, sarax sarax loolu lay jariñ sarax da gis koo xamante ni lii gaaf la nga def sarax yàlla toj ko da nga gis koo xam ne dafa am problème wërsëg fekk ne fu dem danaan dañ ko liggéey fekk kenn liggéeyu ko dafa am raw xaanam sarax bu muy laaj bu ko defee yàlla defal ko tawfiix amul benn werante da nga gis jigéen joo xam ne day sëy sax si misaal amul doom du dem si benn sëriñ pour ñaanlu dañ koy diggal sarax rek mu def ko yàlla defal ko tawfiix gis nga sarax li ma bëgg xam lu mënta fànq si àdduna amul gis nga asamaan si juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar lu ko leeral mooy ñaan loo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax wax ñaan mooy li nga xamante ne moo leeral asamaan juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar lu taxaw rek ñaan ko taxawal amul benn werante kon ñaan lu mu mënta def rek amul bismillah ay ci mi ngi noonu kon Assane Mesre mu mel ni kon daal lépp loo xam dafa jëm ci nit ki daf ko soxla ci wàll lu muy dugg moo xam tukki la place la soxna la lu mu ci doon mm. mën nga ko woo incha allah ci 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 bu ko defee ngeen déggoo ci ca loolee nga dugg mm. euh, kon Assane bu ko defee noonu la ñuy jàllee ci euh, deuxième point bi muy nag lu jëm ci wàllu xorom si xorom si waaw sëñ euh, xorom si moom mel na ni lu baax la ndax démb rek sama benn xarit ak ma koy wax ne mu mënut ñàkk am si xorom si ndax euh, ak ay ak njabootam xaj na dégg luñ ko ay soxnaam dégg luñ ko te mënut tàggoo ak ñoom léegi nag euh, xam naa sëñ Abdou na leeral foofu ba xam loolu bu boobaa lan la si xorom si di man ak it xorom si yow ndax danga koy danga koy yor rek ku ñëw ñu tibb jox ko wala danga koy paquet colis ko wala maanaam ku si war a bokk nan nan la xorom siy demee daal. xorom si tabaarakallaahu sekkare mag ñi la gàllaaju mag ñi la ndaw ñi lu ñu bëri bëri wax mënuñoo dégg kuy waxtaani mbir xorom si nañ hmm. dañoo fa ne xorom la ñu lekk wala lu ñu naan rek lañ ci am fekk doxeewut noonu hmm. sekkare xorom si sekkare mag ñi la hmm. boo amee famille boo xam ne dañaa da nga ragal ñu déggoo di mooy da nga ragal ñu ñu juboo boo xam ne déggoowuñ wala jëkkër ak jabar yoo xam ne neexoowuñ wala ay magar yoo xam ne magar ak yoo xam ne dañ daan liggéey benn xam-xam dugal si xorom si maanaam famille bi nga bëgg ñu déggoo ñépp seen tur yi ngay jël liggéey ko si xorom si ah. amul benn werante maanaam diw sàngam Omar Ousmane Alioune Fatima Bintu nangam nangam ba tur yi jeex. Hmm. nga liggéey xorom si nga koy liggéey si xorom si jox ko waa kër gi. tabaarakallaahu xorom si képp kuñ ci liggéey turam bu ko lekkee du noonu morom ka hmm. mag ak rakk bu ñu ko lekkee dañuy déggoo ba illaa maasa ba maasa allah jëkkër ak jabar boo leen ko xoromee ñu xoromee ko seen diggante duñ kenn du leen atte hmm. sëy boobu fas tas tas mënu si am gis nga ñaari nit luñ noonoo noonoo boo liggéey xorom si seen diggante yàlla day def mahabba seen diggante ak mawadda cofeel ak yërmande. day am xorom si mën nañu ko def si ab bool. waaw maanaam man ma lekk si mu jariñ ma nga lekk si mu jariñ soo bu lekk si di ko jariñ. waaw kuñ ci li kuñ ci tudd liggéeyu sa tur rek. mënu laa jariñ. Ah. moo tax lu doy waar la. Hmm. te nekkut xam-xam boo xam ne saafara lay doon nekk mbind moo xam ne dañ koy jox muy xonq wala muy ñuul demeewut noonu lii tegtal la mag ñi dañ koy liggéey si perkaal bu weex tàll liggéey si xorom si ak alquran ji nga koy bindee ak la si aju tur ñi nga bëgg ñu déggoo incha allah moom nga si boole barki démb am na benn waay boo xamante ne ba Casamance la yónni ay njabootam ñu jógee fi pour ut ut si xorom si nee benn waaye moo ko digaloon ne ko ay waa këram dañu amoon problème xorom sëñ Abdou Aziz Dia ko saafara te xam-xam bi Abdou Aziz Dia moomu ko xam-xamu mag ñi la képp ku gëstu yàlla mën na la woon xam-xam bi insha allahu taala famille bi lu ñu doy waar doy waar doy waar bu ñu ko defee yàlla benn la leen amul benn werante mooy sekk xorom na zax naa maa fii si duuru min xillin boobu lu tax ngay bañ nit loolu la yàlla di nocc ngay bëgg da nga koy amul benn werante incha allah. mi ngi noonu xam naa sax ci loolu lay lay duggaale laaj ko ndax moom bi ñu ko xamee ba léegi dama gis daanaka ñaar ñett di ñu dugg dinaa gis nga yor xam-xam bu bees. Mhm. mu mel ni eh, gëstu dafa am lu bari lu mu la jaral. des fois ma gis nga daw dëkk yu sori lool des fois ma gis dégg la fu sori nga ni ma dafa am benn secret bu may jëli. Mhm. Eh, mbir mi lim la jaral noonu lan la. xam nga yonent sallallahu alayhi wa dafa yee doomu aadama yi ne xam-xam sàkku ko min mahdi ilal lahadi ba nga juddoo sa laytaa yu liir ba bañ leen laatal di la sóor sànq xam-xam farata la si yow moo waxoon ne ne xam-xam ne jaral dem ba siin booba nag yàlla def na barke yàlla def def ko siin moo tax lépp lu ñuy jariñoo si àdduna lu si ëpp siin lay bàyyi ko si ay matériel si ngir kàddu yonent bi sallallahu alayhi gis nga bëgg dara te daraja jarul loola dara dara jooju mënoo si am dara xam boo ko bëggee da jariñ da gis mag moo xam ne na ba bee jaaw xale bu ndaw ne ko am naa xam nangam mu fay si ay pour jot si waaye Sénégal lu seen problème dañuy jël benn xam-xam ne ah diw sàngam mën naa boole ay nit xam mu boole boobu fa lay bàyyi xel yam ba dee. amul benn njariñ. am na koo xamante ne dañ naa la kii man na sangatu noob mën na sangatu mën na noob yow noob googu nit ñi xamee ko c'est tax adduna yëpp bubal ko bëbb ko utsi ko ngir mu sampuleen leen si wërsëg ngir mu samp leen si kayit fekk mënul loolu gis nga nit dafa war a uti xam-xam sooy bu maa lay wax sama diggante ak yàlla mhm. man xam-xam danaa si def ay 3 millions. billaahi ladi laa ilaaha illa même bind mii rek danaa si développé lopp million amul benn werante gis nga ba jon yàllaay tey maa ngi am xam-xam boo xam ne maa ngi koy gëstu léegoo léegi nit ne la am nga ko am am am na ko nga dem ba àgg jëflante ak moom xeeb ah, ko amul benn werante tey da la avant ngay wax da lay facteur ne am naa ko boo ma joxee temps danaa la ko jox mhm. nga fexee dajale temps boobu def ko sa poche pour dem waaye boo demee ba waxtaan ak moom nga xam ne lee mhm. man ba Mali Touba Sénégal amul fu ma dut dem pour uti xam-xam amul benn werante fan yii dafa am benn góor goo xamante ni Touba la nekk ko yàlla dimbale yàlla may ko affaire bi diw amu si morom ñu am benn xam-xam bu ñu waxtaan mu ne ma da xam-xam fu ne gëstu naa ko ma ne ko am naa xam-xam ma koy toñ na ko fay naa boo ma ko joxee 700000 ma jox la ko billaahi mu yëkkati 800000 jox ma ko ñooñu la xam-xam jariñ te mag mu am juróom-ñetti fukki ak nangam la gis nga xam-xam dala war a jariñ ñaq ñukki wala ñukki ñukki bëggoo xam-xam nag di benn dara yow toog Dakar kilim bi di la ëpp guddi ak bëccëg nga ne xam-xam dana lay fekk si mm. xel mënu koo nangu insha allah nañ gëstu ji xam-xam jërëjëf euh, ko ci xam-xam yi ñuy jënd noonu dama mas a toog ak sama benn xaritu sëriñ comme mii day ñaan mm-hmm. euh, muy waxtaan ak jabar ji ndeke jabar ji papaam dafa yor benn secret mm-hmm. waa ji woo papa yi jabar ji waxtaan ak moom papa jabar ji ni ko ah, am naa xam-xam nangam de mu ni ko daal dama soxla mu ne ko ah du ma la ko may de donte ne yaa yor sama doom mayu ma la ko ñaata mu ne ko boo ma joxee cinq cent mille ma jox ko wallaay dëgg la goro bi mu jox ko euh, euh, secret boobu mm-hmm. waaw kon mu mel ni gaa yi nañ ko jëndee tur yooyu mbàkk yu fay bii nga xam ni moo ne fi dégg ko nee na mm-hmm. tur yàlla def na ci ay millions def na ci jëndee na ko lu ne ci alal waaw benn tur yàlla rek jëndee na ko lu nekk ci alal boo jigéen tur yàlla milliard sax hmm. perto waaw perto ndax lam lay ndax lam lay jural ëllëg la dana sellal sa diggante ak sa borom te dana yéwénal say mbiru njaboot macha doomu aadama lépp lu mu war a yittewoo pour ëllëg njabootam ñu nekk si condition yu baax jar na ko macha allah xam naa Assane da nga may demaaleel ci kii bee nga jëlal ma ci musuwaar sëñ bi kilim yaa ngi tàkk waaye xam naa ni mhm. eh, boo dee da may kii nga jëlaale musuwaar rek defee nga indaale <laughs> affaire amateur yi mooy lan. xam naa moo Modou ngay xundu mi ngi doon kon Serigne Abdou Aziz Diaw la ñu dalal ci émission euh, gindi fas yéene waxtaanee lépp loo xam ne rek dafa jëm ci euh, wàllu euh, gi ñuy waxtaanee bu ko defee sëñ bi nga daal di laal kii bi. kilim yaa ngi tàkk waaye kii bi. boo mhm. gisee sëñ bi gaaw a ñàkk. waaw sangu bi la. bàyyil sëñ bi ngay kii. non non xam nga sangu sëñ bi moom day entraîné nag baalu sëñ bi. day entraîné mais entraîné soo demee këram yéen heure yi doog fekk. moom day day day sangu. sëñ bi day sangu. sangu day ñàkk loo sangu yi sangu yi sangu da ngay entraînement yaa ngi tudd lu am solo si doomu aadama dama gis nga fonk ko lool gis nga nisfu sixaati la genn wàll si wér gu yaram mhm. maanaam jaamu yàlla tudd yàlla nu mu nekkee farata guddi ñu toll sport na loolu nekkee farata mhm. da nga gis xale yoo xam ne amaguñ 40 ans am nañu problème zone nañ dañ maa liggéey fekkee liggéeyu la toog bu yàgg kilim bi di la ëpp guddi ak bëccëg doo dee sport mooy feebar gis nga sëriñ si nañ bàyyi naxante mhm. bëri na yoo xam ne nekk na si nit nit a te fu mu demee xel mënu ko nangu gis nga genn wàllu wér-gu-yaram mooy sport nit ñi dañ dem entraînement yi insha allah ah. man damaa xam ne bu njëkk ba may nekk yoof bu ma doxee diggante bu gàtt danaa sonn damay toog benn place hmm. ba amoon xel mu ñaaw sax ne dañ maa liggéey hmm. fekk déedéet sëriñ ci bëri lii moo leen tardé nañ dem seen yaram yi bismillah ayca macha <laughs> allah lii de moom hmm. tabarkàlla ayca kon ñu dugg ci ci li nga xam ne mooy damaa bëgg ñu dugg ci benn bàyyi kurus gi ba bii di ñëwaat sëñ bi day yëngu ci kurus waaw mais sëñ bi dafa yor yet woo xam ni waxtaan nañ ci lu yàgg. Mm. muy yat yi nga xam ne yor na ko. Mm. xam nga mbiru yat ak mbiru dokk ak mbiru nangam ak mbiru nangam. mbiru béjjén ak mbiru euh, béjjén dafa am lu bëri lu ñu jàngoon ci siira te kuy jullit jàng histoire yonent yàlla Fira kii yonent yàlla Moussa ak na mm. la ko musal ci ay noonam mooy yat moom ma yoroon te yàlla ni ko dóor ko ci géej. moom digal nag la ci amoon. Mm-hmm. mais mbiru yat ba léegi dafa am ay kéemaane yu ne ci mbiru yat. moo tax nag ma bëgg sëriñ bi yetam wi yetam wi moom ndax man ab kaan laa ko daan gis mu di ko yor ñu xamu da ko defar la woon fan mm. mais lii moom damaa gis bi nga ko yoree yàggul alhamdulilah waaw sëñ bi lii daal waaw xam-xam ak gëstu mm. xam naa rus naa la lool pour may leeralal la yet bi lu si nekk ak lu ko tax a jóg mm. dana xaw doy waar si man lool waaye xam naa ne mbir la mbir la boo xamante ni ni nga ko bëggee rek am nga si yoon boo xam ne mën nga koo doxalee noonu gis nga yaay jaam yi dafa amoon ndokk boo xamante ni da koo jëloon samp ko si fitu Gambien moo tax bu ñu déggee président duñ nangoo sax tudd turam naan waajaa ngóor gaag mu ngaag mm-hmm. xam-xam mm-hmm. buñ ko gisee rek comme gaynde lañ gis amul benn wenante mm-hmm. ni la amee yoon boo xamante ni boo ko liggéey si xeetu xam-xam yu yàlla dalay defal xabul ku la gis da am na yoon yoo xam ne boo ko defee yàlla da lay defal bayra ku la gis da bëgg am na si yoon yoo xam ne boo ko liggéey yàlla da lay defal wërsëg am na si yoon yoo xam ne kenn duggee say say di la dogaale gis nga yet ni ko xaj ragale noonu noonu la ko ragalee moo tax gis nga doomu aadama màggat lu màggat màggat di dox téye yet di sukkandiku xaj da ko fàdd de bukki du ko jege de mhm. donte mag moom bu ko xaj bi fàddee mu daanu mhm. waaye yet bi protège la si moom mhm. noonu la amee baatin nag am na it boo xamante ne yoon yoo xam ne boo ko tiggee seeru xam-xam yi foo nekk élimaan nga fay doon. Hmm. da ngay not jaam yi dañ lay fonk dañ lay bëgg dañ lay jublu amul benn werante. kon yat bii loo ma fonk fonk su ma la ko ñaanoon doo ma ko may. déedéet déedéet déedéet déedéet loolu ma àgguñ fii. ah kii si man la bokk. ñu <laughs> ne loolu amul waaw loolu àgguñ àgguñ foofu waaw loolu ma àgguñ foofu kii si man la bokk. Ah, kii gis nga xam-xam bu doy waar la boo xamante ni. <laughs> Ah. bu ma nekkoon di ko leeral nan la mën a falee nit ak nan la mën a folee nit daan dana danga naan ma déedéet. gis nga am na suñu ñoon yoo xam ne nekkuñ affaire sëriñ mm-hmm. duñ liggéey yet bi comme nii dafa am beneen yoon bu ñu koy liggéey zaaru njëli lay doon ñu koy dugal seen biir mhm. fu ñu waxee rek nit ñi déglu leen te fu ñu nekk nekk fa njiit mhm. te insha allahu da ngay na koo yor ku dul yow maanaam ah. waaw ko wala boo booy doxi mission mhm. wala nga yóbbu mën naa koo laal nii laa naa koo waaw am nga si ndigal ne am na si ndigal lu doy waar la gis nga yet bi fii mi ngi nekk ak yow nit mënu laa sànni korte mu jàpp la nit mënu laa liggéey te it mënoo dugg si oto mu def sok amul benn werante te it mbiru yoon yàlla na la si defal tawfiq amul benn werante lu doy waar la. léegi suñ bi yet bi doog fi bàyyi. ah déedéet mënul nekk. Hmm. gis nga son yi. <laughs> waaw Modou xam naa dara kii yet bi dafay dundu da dafa hmm. am naataange. dañ koy liggéey sungufu or mhm. dafay am sungufu xaalis dafay am ak yeneen yoo xamante ni juróom ñaar fukki mbir yoo xam ne moom mhm. mhm. <laughs> laa ko joxoñ <laughs> bi bu dee da jàppante ak nit jël taat bi joxoñee ko mën koo def yóbbu laa bi ah. waaye lii boo si bëggee fal nit insha allah kon Modou yàllaa ko nar dimbale bopp bi day ah, déet déet déet waaw loolu ah, kon Modou mi ko jox ah kon Modou mi dafa joxoon mbir tabaarakallaahu yàlla da ko yëkkati lool. déedéet waay macha boo ko joxoñoon taat bi lay suufee waaye comme que bopp bi nga koy jox àdduna dañ koy seet. ah waaw alhamdulilah. waaye man na ma def ba joxoñ ko Modou te joxoñ ko. ku yàlla dimbali la kay moom ma allah Modou. <laughs> bisimilah. jërëjëf kon mi ngi noonu mbokk yi eh, sëñ Abdou Aziz Diaw la ñu dalal kër xam naa ne macha allah kër waaw non kër moom beneen naa ju naa ko bii passé dinañ ci ñëw xam nga ah. sëñ bi comme ajuma bu jot mu ñëw samp kër uh-huh. waaw parce que mbirum kër moom euh, dafa doy waar kër dafa doy waar ma la ay neexal kër gi de hmm? mais ah. jëmmi maanaam nga war ah. yàlla balaa ngaa teg birig hmm. ñëwal ci waaw loolu moom man soowaay bu maa ko bala ngaa teg benn birig boo amee terrain bala ngaa teg benn birig hmm. demal nga seet. waaw ah. ko sëñ bi kat damay tabax. Hmm. ndax ndax ndax ndax ndax. wala bala ngaa dër it bu mënta ñàkk bala ngaa dër nga seet si ko mu dëraale ndax it. waaw tabax sa kër ba mu àgg sëncoo ko. Hmm. metti na trop waaw dëgg la. am na ñoo xam ne tabax seen kër ba mu àgg léegi maa day taal yi. macha allah yal nañ si yàlla musal. kon dugal ci wàllu kayit bala ñoo dem ci li ñu war a tey eh, waxtaanee après ñu tëj. waaw ay kayit it eh, sëñ Abdou bëgg nañ ko laaj moom bu si dee ñaanal nit nan la koy ñaanalee man man tey ji damay dem bitim réew rek woo ko ne ko damaa bëgg kayit mu ne ma yónnee la damay déposé ba pare wala damay ami kayit wala wala nan lay ñaane si mbirum kayit bu ko defee ñu tàggatoo waale ko. waaw sëriñ bi non actuellement daañu bëgg naan tàggatoo. tàggatoo waale si wàllum kii bi laa. waa waaw waaw alhamdulilah. <laughs> Mm-hmm. gis nga nit dafa war a fexe ba am juboo digganteem ak boromam. Mm-hmm. bu la yàlla mayee nga juboo sa borom mën ngaa juboo ak nit ñi. Mm-hmm. waaye heure boo juboo ak sa borom mënoo juboo ak ak doomu aadama yi. gis nga ñun fañ sanc nii Thiès bañ fa sancee léegi yàlla dogalagul mu mën ñaari at waaye ñun ñi fa seet si jógee bitim réew kenn xamul nu mu toll mhm. wallaahi la laa ilaaha illaa bëri na si ñoo xam sax dañuy ñëw mën a la asan mesere diw sàngam seet si na ma te it am na ñoo xam ne am nañ juróom-ñetti at bitim réew a am kayit ñoo xamante ni tabaarakallaa profité nañ si corona bi yàlla may leen kayit mhm. amul benn werante mhm. gis nga xam-xam dala war a jariñ dala dala war a jariñ gis nga léegoo léeg nit ñëw Sénégal na ma sëñ Abdou fan nga dëkkee ma ne ko barab sàngam mu ne ma yaa ma doon ñaan dama le wallaay fàtte ba mm-hmm. te xamatuma daal te am na xaal boo xam ne bu ñu ci dogo dañuy dogo na insha allah bala at mee jeex yàlla defal mm-hmm. mm-hmm. nga na secret boo ko bindee di uti kayit boole ko sa ko boo doon li ngay uti yaag mille personnes la yàlla boole la yàlla jox la ko amul benn werante dafa man boo may utloo kayit dafa am boo xam ne dama la koy jox nga ko liggéey ñetti fan nga arrêté ko balaa at mee des bu doon décembre nga koy def balaa décembre nga am kayit bu dee novembre balaa novembre mën nga koo def ne yàlla defal la tawfiq balaa weer bi dee nga am ko waaye at mi ma mënu ko mënu see mënoo see xam-xam boobu mm-hmm. pour son bi maag moom ñoo nekk mm-hmm. mu amuti kayit amu kayit mm-hmm. léegi yow son bu wax ak yow jox la weexal nga jox ko xam-xam bi son bi def ko amee kayit bu ma ko waxee bu son bi waxee moo ko defee mën na ma am xam nga numéro téléphone da ngaa jël numéro Assane Miss bind cent quarante cinq quatre-vingt quatre-vingt-dix-huit vingt maanaam boo bindee numéro Assane Mesere xam nga li mooy numéro Assane Mesere ah. bind nga ko composé nga ba mu waaye bësoo ok taxul nga jot Assane Mesere. Ah, maanaam secret bi lu mu wér wér boo ko jëlee jox ko keneen li koy doxal nekku si yow amul benn werante waaw ñun dafa am loo xam dañ la koy defal liggéey la ko fii ba pare door laa jox secret bi ne ko def ko ñetti fan arrêté ko bu passé ñetti fan day ëpp mhm. ñetti fan nga koy def la lu gàtt la mhm. amul benn biir tamit ba jox keneen du ko jëriñ dara ndax luy doxal mu nekku si moom léegi ci biir loolu am na ñaari façon ñàkk kayit yu am kii dafa dem mhm. maanaam daal dafa dem rek ñu naawtal ko wala bokk ñu liggéey ko ba ay kiyam kii nag moom dafa dem dara defuñu ko ko mais dafa amagul kayit léegi ñaar ñooñu ndax même secret bi ngeen di jox da di tinki ci loolu wala. waaw xam nga ku feebar. Hmm. bala naw docteur na wér. Hmm. boo feebaree bala ngaa ne docteur bi moo am xam-xam na fekk nga wér. Hmm. gis nga jàngoro bala ngaa mbiru kayit fexeel li la gàllankoor yàlla dindi ko pare nga door ut mbiru ah, kayit. amul benn werante mooy mooy mooy mooy gis nga ndaw yi Sénégal yi. bëri na ñoo xam ne dañuy dem ci sëriñ ne sëriñ bi amul li jaab ñaan fekk ñooy tàngal seen xolu way jur yi. gis nga nag feeg ni xolu way juróom mi ngi tàng ku la ëff tamit doo tooy. ku la tëfli doo tooy ku la taal doo tàkk wala boo tàkkee da ngay bala ngeen jël seen i million wala seen téeméer wala seen junni di ko jox sëriñ da seet seen way jur ñu ñaanal leen ba xol bi sedd bu ñu àggee si sëriñ bi mm-hmm. dafa dëgër dafa métti lool dafa am benn waay boo xam ne dafa mas dal mm-hmm. mu ooma fii si France gii rek yàlla xam na ko mm-hmm. ma defal ko benn mbir boo xamante ku ma ko mas defal yàlla defal na ko tawfeex ndax heure bu ma ko heure bi moo ko defee mënu ma gis gisuma dara wallaay tallaay yàlla rek mooy sama seede damaa gis benn jour mu teg satala bëgg a jàpp rek yaayam tuur weq satara bi ma ne ko yow jubóog say wéjjur mu ne ma ba nu mu tàngoo suuf wallaay tallaay daf ma rëbb allahu akbar te li mooy xam-xam ndax sëñ Abdou Aziz mën na si koog dara. yow maam kon boo defee ne kenn dara mën la gusu ko il faut nga xoolaat ay mbiram moom. Ah, waaw xam lan moo tax gusu waaw gis nga ñaan. <laughs> mission boo nekk si ñaan yàlla buur bu nekkul buur bu soxor. Mm-hmm. Macky Sall mii chaque jour boo nekkee di ko taggal ay maam bu yëkkati teraanga jox la. Mm-hmm. yàlla mu yor lu dul jeex te doo yow ko dara am tur yoo xam ne boo ko si ooyee mu uyu ko. nga mm-hmm. oo si yàlla tey ñëwut nga oowaat ko si suba ñëwut ba 40 jours ñëwut xoolal lu xew. d'accord mais kayit moom il faut nga déposé ba pare nga doog ko ñaanal wala jurul muy déposé. day bëgg kayit gis nga boo déposé kayit ba pare. ñu ne la ba heure sangam wala nga war nga uti rendez-vous ñu ne la fii ak mois de sangam da ngay am rendez-vous nga omo bala ngaa dem sa rendez-vous ba yàlla defal la tawfeex. waaw boo déposé boo déposé ba pare nag pour mu demal la ñaan pour si résultat bi gën nekkut garanti waaye boo déposé ko garanti lay doon. boo déposé gul boo déposé gul ah, garanti lay doon waaye bu dee da nga déposé kayit boobu rek ngay xaar ñu refi la war ñaan rek la ñuy def waaye duñ ci garanti kenn bu fekkee déposé gul bu dee déposé ko pare nga ne bis sàng laa war a déposé ma defal li may def nga door a déposé kenn du la refale maam koo xamante ne déposé wu deful dara ma nga bitim réew deful dara dafa toog hmm. daan ne damaa bëgg kayit waaw moom la wax ki déposé garanti la mais ki déposé ba pare doog a ñëw ci moom maanaam ku utiwut mission moo gën a yomb ku utiwut mission hmm. maanaam solution laa bëgg liggéey te amoo contact ak soxna bu jëm amoo contact ak assainissement taxul nga liggéey ci gis nga këyit boo ko bëggee da def effort sëriñ mën laa jàppale hmm. waaye bëgg sëriñ toog toog say këyit dem toog France wala toog Italie ne demuma uti këyit déposé bu uti ma xaw fu may jaar sëriñ mënu ci dara gis nga ku bëgg dara da ngay def dara pour yàlla fekkal sax jërëjëf mi ngi noonu sëriñ Abdoul Aziz Diaw la ñu dalaloon ajjuma dina fi ñëwaat bu ànd dogalu borom bi sëriñ bi ñu nag dugg Baye Assane ci li nga xam ne maa ko aaloon sama kii gi. ah maa ko aaloon ñaari bal. dama dana ma jaaxal dinañ ci ñëw. sëriñ bi Ahmed Khalifa Niass dégg nañ fan yi muy euh, wax ak Sonko ba ni daf koy porter ndax daf ko saaga dafa tudd ay yëfam yu ñu lakk beneen beet nee na dafa dem fële Medina Baye ñàkkee teggin waa dëkk ba. Mm-hmm. ndax jàpp nga ni loolu rôle rôle am la waroon doon wala suñu baay jooju daa waroon a nekk benn benn kuy wàcce tension ci dëkk bi. waaw moom kilifa la kuñ naw la kuñ fonk la kuñ respecté la kuñ jox cër la. waaye itteem si réew mi ak fu at yi toll ko waroon mooy jàllal loxoy jaam yàlla di leen ñaanal fin na warta jugee réew mi jugee si kilifa gu mel ni Ahmed Aïdara ak Ahmed Ahmed Khalifa Niass ak fu mu toll si réew mi ak lu mu servi Sénégal bu fin na amoon si réew mi moom dafa waroon taxaw tànki fay ko waaye war koo yëkkati gis nga heure boo wàccee sa ta ànd boo dem da nga fa borom moo tax Ahmed Al Khalifa képp ku koy ñàkkee keggin si réew mi moo def lu mu a def rek la bu tegoon tànkam fu mu ko war a tànk teg tànk kilifa diine yi ni tegee seen tànk fu ko war a teg kenn du ko dépassé amul benn wane kili dafa def kilifa dafa war a yem baasam yem palaasam si ñaan yàlla si toroxlul jaam yàlla yi si xettali jaam yàlla yi waaye kilifa du yee fitna d'accord Assane kon nga dugg ci mbiru dàmbooj Mbodj bi. waaw Dame daal euh, sëñ bi dafa defoon ab émission génn di ñibbi daal nee na daal jékki-jékki dégg bali téel téel téel mu takk jóg. Mm-hmm. Euh, bi mu dawee bay bëgg a daw daal ay xel yu métti ñu topp ko ba mu làqatu euh, gis na ni daal bal yooyu yëpp dugg na si otom waaye benn jotu ko see dal ñu bari yàpp ne sax dañoo bëggoon dàq ko mu tiit. wala ñu dóor ko ball mu def soog ñu ni daa màndi woon di dawal affaire yooyu yëpp yàlla suturaal ko si li mu wax moom am na suñu gëm ni loolu mm, mën naa nekk am na ñu gëm ni loolu mënut a nekk ndax topp la di dóor la ay fital te benn dëllu la si loolu warut man mën a ne am na ñu ni nag nekk na. ah première bi li ñu si war a jàngat xaw ma kuy dàmbooj mosuma koo gis waaye ku yaayam gërëm la ñaareel bi ko am ñaan la te it ñetteel bi war naa tax tamit senegal yëpp baase wu nu def kii def ba mucc. gis nga palu fetal bu ñu la ko dóoree bu la dalul sax tiitaange gi mën naa tukkal sa àdduna ah, nga bëkk oto ah. wala nga këpp wala nga dem neneen waaye juróom-ñaari balu fetal ñu koy tiir sa jëmm ji dara amu si loo xamante ne dal naa la si yàlla dimbale na la am nga ñaari gàllaaj say jur gërëm nañ la te ñaanal na la te am nga gàllaaju bopp gis nga ndawi Sénégal soñ soñ bu mm-hmm. nañ uti ñaan si naa def jàngat si ay nitam mm-hmm. gis nga li mu war a def jàngat ay nitam moom président dafa mel ni ñi toppee wuñ ko mbëggeel te yàlla tax poosam lañ ko toppee. Mm-hmm. président ñi mu ànd ak teraanga ju ne di ji dina leen ko lu ne jox na leen ko. Mm-hmm. waaye kenn du dee ngir Macky Sall te Ousmane Sonko ngi nii waxtu wu ne ndaw jàngi dee ngir moom te nit ñaa ngi ko gën a bëgg. Mm-hmm. war naa xool lan moo xew. Ah, lan moo tax ma yëkkati sama teraanga jox leen police jox leen ñi ma ànd ak samay ministère lu ne ma defal leen ko te nañu nanguwuñoo dee ngir Macky Sall te Ousmane Sonko ndaw ñi chaque jour ñu ngi dee guddi ak bëccëg ngir moom waaye tey lañ ko gën a bëgg kon ñii kii dañoo topp kii te yàlla tax. Mhm. kii ñu topp ngir poosam kon Macky Sall ñi ko topp ngir poosam war na leen xoolaat. Mhm. gis nga ba la fee nekk di tëj ndawi Sénégal ne ne dem jàpp ñi ànd ak mu éliminer leen dóor leen laaj leen lu xew moo gën muy oote nit ñi di invité ay nit di luye ay nit di leen indi ay public ñu naan ñii dañoo bëgg Macky Sall kenn bëggu si Macky Sall boo ko bëggee dala war a jaral sa bakkan bi mhm. te Macky Sall ñi ànd kenn du tey la bakkanam ngir moom d'accord te ndaw ñaa ngi jox seen bakkan nga Ousmane Sonko nañ xool lu xew macha allah léegi Ousmane Sonko moom la 30 bi nag sëriñ bi fa la ñuy doore fa la ñuy kàddu yi incha allah la 30 war naa wuy ji am na ay jàngatkat yu bari yu ma dégg ñu ne la 30 bii moom maanaam lu doy waar lay doon ci réew mi ndax juge bi sañul renvoyé waat il faut mu joxe. Mm-hmm. maanaam ni Ousmane Sonko kat daan nañ ko wala kat Mame Mbaye Niang Aliou yéen li la Ousmane Sonko am na demal nga demal nga doxi nga mm-hmm. toogi léegi nag lan ngay jàngat ci la 30 bii di ñëw ak it sëriñ bi yéen kàddu la ciy wax bu fekkee am na loo waaw ak weeru koorum tombé sëñ bi la 30 bi hmm. bu neexoon président Macky Sall du am jàngatu président jàngatu la 30 bi du daara lu dul Macky Sall jéggale te yërëme jël dossier bi teg si tànkam ñaan réew mi jàmm jàmm loolu rek ko ko war sa la 30 bi gis nga ni ndaw ñi fipp nañ fipp goo xamante ni bali fetal tiitul leen grenade tiitul leen dara tiitul leen te Macky Sall Ousmane Sonko jaral na leen seen bakkan bi mm-hmm. Macky Sall ñu ngi koy ñaan li wa ci laay ak koor guñu nekk mu jël dossier bi comme nee na yu bëri moo si teg concam bii nag mooy premier poids bu ñu war a teg concam na si teg concam réew mi am jàmm ne demee bitim réew nee réew mi dafa am ñu fi nekk di hmm. ak mbaaxu Macky Sall chaque jour dama naan du liggéey bi ak réalité ak yu bëri luy njariñal Macky Sall ak lu mu ko bàkkee mooy Amadou Sall sa bàyyi ku amoon yërmande la Sénégal ba mu bëggee tàkk ba nit ñi réew mi bëggee jooy ngir Ousmane Sonko wala ngir joxe seen bakkan ngir Ousmane Sonko moo jëloon décision bi teg si tànkam ëllëg mu am way wu rafet gis nga le 30 man bëgguma ah way bi weesu wallaay Sénégal dellu ginnaaw weesu wallaay tallaay huit mois yu ko si desee wala onze mois yu ko fi desee wala dix mois yu ko si desee man na si am way wu rafet Sénégal gaw naa fàtte Macky Sall bu tëboon tey ne wàññi naa ceeb bi te li mu wàññi tey ëllëgaay yokk ko man loolu lu ma méttee ngi noonu Macky Sall na xoolaat mu ànd ak dañ koy jàppale waaye bëgguñ ko amul benn werante gis nga la trente bi na si jël tànkam mu teg ko si li wa ji laay taala koor lañ nekk mu jàggal Ousmane Sonko jéggal ñi mu ànd ak ni ñu am jàmm réew mi jàmmi réew mi nekku si président Ousmane Sonko nekku si ànd ndoram jàmmi réew mi si roxoy Macky Sall la ko yàlla teg bu jàmmalee Sénégal Sénégal am jàmm bu jàmmul Sénégal nit fi ne si la ñuy dëkk nga bu jàkkaarloo askan wi di tëj kose yi fees di jàkkaarloo askan wi di rey nit ñi di dee taxul ndaw ñaa ngi gën a bëgg Ousmane Sonko na xam ne lii mbiru yàlla la tam xam ne Ousmane Sonko si njabootam la bekk la bokk mm-hmm. Ousmane Sonko ak sëñ Abdou Aziz Diaw ak son bu Diop ñëpp a yem ay njabootu Macky Sall lañ nañu jéggal jërëjëf mi ngi noonu Assane ma ngay ëbbali kon mi ngi noonu Serigne Abdoul Aziz Diaw la ñu dalaloon. Mm-hmm. ma nga fële ca Thiès boo waaye bu fekkee da nga jógee Dakar wàcc péage bi juste booy dem rek premier rond bi nga njëkk a jot euh, à droite da ngay jàdd noonu dem euh, ci quartier Serigne Abdoul Aziz Diaw ay numéro mi ngi noonu 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 incha allah bii di ñëwaat dinañ waxtaan lu jëm ci wàllu kurus ak ci wàllu euh, kër ak ci wàllu yu bëree bëri wàllu palante yi tamit ci ciy yëngatu lépp lu jëm ci wàllu hémorroïde euh, ndoxu siti ak li nga xam ne moom mooy góor gu néew kattan ak góor goo xam ne sa sperme dafa wàññeeku yooyu yëpp sëriñ bi def ci daf ci daf ciy yëngatu kon daal Assane hmm. ajjuma ak jàmm incha allah ajjuma ak jàmm incha allah euh, yal na yàlla def jàmm ci réew mi hmm. waa defal ko waa bitim réew di ñaan ñu téye si kaso bi yëpp ñu bàyyiwaat leen ñu delluwaat si seen i yitte d'accord big bi pour lan la biig bi wax naa la ko taay biig bi pour ñàngal la son yi. kon defoo ci dara. dara defuma ko ci binduma ci dara damay ñàngal nii rek nii biig bi mooy coow. si mais mi ngi mi ngi bind. ma mosuma see bind de damay bañ mu jeex nee naa la naa bindal bi naa la jëndee biigu cent franc. <laughs> boo ko gisatul maa ko jël de. ñaata kon mu mel ni kontaan nañu. Euh, Thiès nga jógee nii war a delluwaat ñu bàyyi la xam naa kon rek nga tàggoo war a dellu ci it ya waaw alhamdulilah gërëm yàlla bu baax di baalu àq ñëpp si koor gi di leen baalu àq di leen ñaanal yàlla defal leen tawfiix ak tayseer wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu amin waaleykum salaam wa rahmatullahi wa di gërëm sa euh, rakk ji nga àndal euh, kii. Badara Diaw waaw Mouhamad. Badara Diaw Mouhamad Badara Diaw ñu ngi koy nuyu bu baax moom mi nga àndal noonu. ñu ngi koy ziare bu baax allah di di di di mag ci yow. di ko baax gisante woon nañ waxtu bi ñu fa ñëwee woon foofu la ca yoof mbokk mi ngi noonu Modou Diouf jërëjëf Ablaye Diallo jërëjëf Abdou Top jërëjëf mbokk yi doon seetaan jërë ngeen jëf ba àjjuma ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu